ñu dem. tàngal bége jinjeer ndoxu waalo boisson punch. ak orange. ñoo leen di may seen émission ndekki li. ñu Fou Malade. mouvement Y en a marre invité ndekki yi léegi léegi. la bay di bi def bu bees yaa ngi ci émission ndekki lii ak maam Nicolas Imam Maodo Faye jërëjëf

tàngal bégee boisson punch orange monnaie à travers Sonatel ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëmati jaa ngeen jëfati euh, toute la semaine nous étions avec Mbacke Maodo Maodo Mbacke ah euh, bu ko defee booy euh, bég ci lool ci TikTok bi ba di leen partage ak di leen di leen di leen challenge ah xam naa ne Mbacke Sylla ngi ngi ngi buzz jamono ji ci TikTok bi loolu am na solo ñu koy ziar au passage mais pour boucler la semaine en beauté comme vous le savez ni ñuy def saa su ne mooy daal di àndandoo ak un invité de Bougane Gueye Dany la semaine dernière n'est autre que Fou Malade bu mouvement Y'en a marre mais laata ma koy introduire ma dellu nuyu bëgg ziar suma xarit suma kilifa oustaz Maodo Faye bismillah waa maa ngi lay nuyu Nicolas di nuyu bokk yi nga xam ne ñoo ngi ñuy déglu ci waxtu wi ñu toll ni tembe mhm. di nuyu également fu fu malade ah mais en fait antagonisme boobu quoi le fou est déjà malade ah. <laughs> c'est nga ne ko c'est un antagonisme. waaye vraiment moo boobu parce que fou malade le fou est déjà malade bon il est malade bon en tout cas moom il va nous expliquer quoi. n'est-ce pas mais mais mais xam naa ñàkkul xam naa dina dem ba ba jëmi rek mu ne boo de leen ma woowee malal taala quoi. non non naturellement malade bi aussi. ça devient. un peu ça devient un macha allah nit ki boo ko xamee lu yàgg quoi. Ah, eh, mais bon comme c'est un mot comme ça. n'est-ce di ko ziara bu baax a baax di la nuyu également bon di rafetlu également ni nga xamee ne noonu la émission bi di tëddee. n'est-ce am na solo jërëjëfati oustaz Maodo Faye euh, kon euh, Malal Talla aka Fou Malade bu mouvement Y'en a marre ñu ngi dellu di la nuyu di la bëggee di la ziar di am mbégte nanu koy amee saa su ne bu ñu lay dalal bismillah. waaw jërëjëf euh, Nicolas jërëjëf Maodo Faye jërëjëf auditeur u Sud FM waaw maa ngi kontaan ci doonaat seen gan parce que effectivement c'est pas pour la première fois que je viens et c'est à chaque fois c'est avec beaucoup de plaisir que je réponds à votre invitation. jërëjëf jërëjëf Malal Talla d' abord euh, euh, dama bëggoon jël ay nouvelles kii euh, Missane kilifa kilifa waaw. waaw Kirifa def naa à travers. avec braquage waaw bi amoon fan yi weesu def naa y' deux trois jours il a été cité parmi ñi nga xam ne kii yaa ngi am ay nouvelles am. oui il était avec sa famille. Mhm. Mm, jabaram doomam ak moom. mais j'avoue qu'il a été bi ma ko déggee téléphone barki démb euh, il a été très surprenant pour moi parce que euh, ni ma gisee affaire yi ak li ma blessure yi ma gis mm. euh, ak ni ma nettalee effectivement ni affaire yi demee mm. jàmbaar dëgg la mm. yàlla na ko yàlla may mu gën a am féex ba pare musal ko ci cat Mm-hmm. musal ko ci cat parce que cat baaxul mm-hmm. yàlla na ko yàlla dolli sutura mm-hmm. waaw di wax ni effectivement jàmbaar la bu baax a baax xam ay gàllankoor moom jóg ci bii dal ci bee hmm. euh, yàlla na ko yàlla dool dolli sutura bu baax a baax hmm. jaajëf jërëjëf kon ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax euh, muy euh, kilifa bu mouvement Y en a marre Landing Missane ah, mook njabootam ñoo àndoon ñu leen i massawu bu baax a baax a baax tey ça ça les laisse de de de parler un peu puisque mbir mi mu ngi xewee def naa Bignona ci rn bi loolu la ñu waaw c'est c'est c'est là où il y pratiquement les opérations militaires en ce moment là au nord de Sindian bi Bignona foofu noonu mm. euh, que xam nga gars yi dañu nekk déroute quoi mm. les les rebelles mm. mais parfois nag c'est très difficile euh, armée bi di xam nga boo nekkee boo nekkee ci ci terrain boo xam da nga nekk ci ci combat doo am sax jotu génn def braquage léegi nag dem ay bandi yoo xam ne dañ ciy rax. di hmm. génnaale ci occasion yu mel noonu. Hmm. yore ay ngànnaay mën na nekk aussi ah ci waa MFDC yi aussi mën na nekk. Hmm. ñi nga xam ni comme armée bi seen dernier communiqué wax mooy gars yi dañoo nekk en dañoo fëx daw dugg ci àll bi. yóbbaale ay ngànnaay. léegi nag il faut ñu am lu ñu jéem am def ci seen poste pour yóbbaale. parce que avant braquage bii di am ni am na bu ko jiitu woon. nest chauffeur bi li mu wax mooy ah mais man dañ ma arrêté ma daw. après ñoom ñu tiré ci oto bi quoi bi ñu ñëwee ñu ne ma après defuñu ko dara bàyyi ko mu dem xëy na peut être dañu soxla dara wala yu dem noonu parce que peut être ils étaient en difficulté de l' zone gars yi leen nag moom mooy ne hmm. fu ñoom fu ñu mën a leen fay fekk te gars yi dañ leen di xàmmee hmm. population yi dañ leen di xàmmee hmm. et à euh, bi ñu bëree bëri génn nañ ci village yi léegi soo fa nekkee un jeune homme di taxawal ni ci àll bi kii ak sa comportement gars yi lay flairer dañuy xam ne yow mi ci gars yi nga bokk moo tax léegi dañuy daw dugg ci frontières yi et cetera quoi léegi nag dajeel malheureusement par manque de chance. <coughs> Mm. ci yoon bi dañ leen di jéem a braqué am ci ñoom dara yooyu dem. n'est-ce pas mais l'armée est en train de faire un bon travail. n'est-ce pas merci merci oustaz Maodo l'armée est en train de faire un bon travail merci ci information journalistique mm. yooyu noonu euh, ça laisse l'occasion euh, de poser la question à Malal Talla justement ba nga gisee opération yi armée bi dëkkee jamono yi euh, dans le sud du Sénégal jàmmarloo mun nañ wax ni effectivement depuis très longtemps armée mu ngi defay ay opération booy xool euh, bu ñu delloo ay un an wala un an ci ginnaaw armée bi defoon na euh, des opérations ba au niveau de la frontière Guinée Bissau guinéenne mm-hmm. donc euh, jamono yi aussi ñu seetlu juste après kidnappingu quelques soldats sénégalais que dafa mel ne effectivement armée dafa nekk di def réaction mhm. parce que effectivement l'armée ne doit l'armée doit rester forte elle ne doit pas Euh, warul elle ne doit pas hmm. warul euh, dafa ware ni war a wane ni effectivement armée la quoi hmm. donc effectivement dóor fayu la hmm. affaire bi aussi dóor fayu la opération de terrain yi lu war la sécuriser population yi lu war la euh, ba pare jële fi saay-saay yi ah, parce que Sénégal benn bopp la Sénégal benn bopp la loolu lu ñu war a taxaw la quoi donc ñuy jaajëfal armée bi bu baax a baax ci liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy def foofu noonu mais aussi ñu fexe liggéey bu baax a baax pour euh, effectivement régler définitivement ce problème la mm-hmm. mm-hmm. parce que ñi ciy sonn dëggantaan mooy euh, les les les les civils mm-hmm. les populations ñoo ciy sonn bu baax a baax et puis c'est des zones très très enclavées où il n'y a pas assez d'opportunités donc euh, bu fa yu mel noonu amee effectivement population yi lay gën a sonal ñu war cee taxaw nag pour wut ci saafara lu mu gën a gaaw gaaw parce que euh, euh problème bi euh, ça a assez duré loolu euh, ñëpp constaté mais il est temps aussi que ñu ñu jublu ci justement dans dans ce il est temps là politiquement am na une sortie qui a beaucoup fait parler dernièrement celle de madame Mimi Touré ancien premier ministre def benn sortie ne problème mu Casamance bi il est temps que nouveau maire de Ziguinchor ñu naan ko Ousmane Sonko jël ci position ñu waree position ferme et tout ça ba ñu bëri ñoo xam ne jóg nañ ku nekk euh, wane ci sa sa sa sa xalaat ak sa taxawaay par rapport ak gis-gis boobu nan nga gisee le fait que euh, kilifa bu mel ni Mimi Touré di demander à ce que maire Ziguinchor bi euh, wane position par rapport ak conflit Casamance. oui mais je pense que c'est loolu Mimi Touré wax c'est acte politique la. li mu wax c'est très politique. mais je veux dire Ousmane Sonko il est maire de Ziguinchor Ziguinchor est dans Sénégal. Mm-hmm. donc euh, mënuñu ko ci pourquoi mu war ci wax dara il est clair il l'a dit li mu wax mooy euh, il veut être le président du Sénégal et non de la Casamance donc euh, je je pense que loolu c'est de la provocation c'est de la provocation à sens avec avec un sens très très politique quoi hmm. pour effectivement pousser ko Euh, pousser ko effectivement pour nit ñi identifier ko effectivement comme quelqu'un qui soutient la rébellion hmm. c'est implicitement c'est Yves elle veut l'amener à ça. Mm. Ousmane Sonko je pense. bëgg nit yi jàpp ne Ousmane Sonko. kon day jàppale rébellion bi. oui c'est c'est un acte politique hein. c'est un acte politique c'est de bonne guerre. ah c'est de bonne c'est un acte politique. Hmm. donc parce que effectivement depuis un certain temps. Hmm. on lui colle depuis qu'il est là quoi. il faut lui pour man il faut lui opposer des arguments euh, politiques économiques et cetera et cetera. Mm. mais pas di ko teg ci ay situation identitaire mm. moom aussi de temps en temps il joue dans ça parce que récemment aussi je l'ai entendu dire euh, Macky Sall ki bokk ci xeetam la fal c'est pas des choses qu'on dit ouais. Euh, pour man euh, rafetul ci république c'est parce que euh, moi je pense à ces militants à ces souteneurs qui sont également de qui sont également des Haalpulaar qui sont également de Pël quoi. Mm-hmm. donc ces aspects identitaires nañ ñu ci dimbali euh, Sénégal soxlawu ko Sénégal euh, li mu soxla mooy benn bopp la kenn mënu koo xarñaar mm-hmm. donc je pense que Mimi Touré loolu mu wax euh, daf ko wax simplement pour pour en fait nit ñi mën ko identifier comme. comme quelqu'un qui soutient la rébellion alors que Ousmane Sonko n'a jamais dit ça mm-hmm. donc Ousmane Sonko mësul wax loolu mm-hmm. parce que jusque là dañuy jàpp rek mm-hmm. ci li nga xamante ne moom lañ ko dégg mu koy wax mu assume ko là il est maire de Ziguinchor Ziguinchor fait partie du Sénégal. n'est-ce donc. Euh, am na solo <laughs> am na solo il est député à l'Assemblée. il est député à l'Assemblée du Sénégal. justement loolu assemblée sax danañ ci ñëwaat léegi léegi oustaz Maodo nga baal ma laata ma jox nga euh, laaj euh, Malal Talla ma introduire également une suite quotidienne du jour une fois n'est pas coutume en ce mars La une de Sud Quotidien, mobilisation citoyenne contre le parrainage à Dakar. Le préfet plombe la marche. L'itinéraire partant de la place de la Nation au ministère de l'Intérieur sème la discorde. noonee la ko Sud Quotidien xëyee tey ndax xam nga diggante de ak tey mooy information phare bi le nga xam ne euh, kenn ci membre mouvement Y'en a marre a ngi fi toog euh, kii euh, Malal Talla Fou Malade gars yi sénégalais yi nee nañ est-ce que yéen du ngeen bàyyi nag ay ay marche ki ay woote mobilisation parce que c'était un échec cuisant sénégalais wuy wuyu wuñu leen ci marche bi ngeen woote woon ngir wax wax ay parrainage te sénégalais yi neen ne tal nañ leneen lu dul ngeen leen di doxloo pour ay parrainage nan nga gisee seen euh, seen échec bi démb. oui en fait euh, échec c'est pas échec c'est pas mauvais hmm. oui parce que la seule chose dont il faut faudrait avoir peur c'est de ne jamais avoir essayé. Hmm. donc il faut essayer et les gens sont sur le principe. Hmm. xam nga principe mooy ni. lii butéel bii ndox mi nikola moo ko moom hmm. par principe su ma joxul autorisation ma naan ci du ma ci naan loolu principe la loo xamante ne nit lu muy sàmm la hmm. maintenant le le parrainage en hmm. soi le principe du parrainage ci boppam bonul mais les modalité yi nga xamante ne effectivement niñ koy tege ak niñ koy organiser loolu la gaa yi d'accordul maintenant loo gis ci àdduna dina ñaar ñett a koy yëkkati mën nañ dem fii ak dix ans mbooloo mi door koy comprendre mën nañ dem fii ak cinq ans mbooloo mi door koy comprendre ne ah kon lii moo taxoon gars yi jógoon dans les années temps hmm. ce principe là il est important et puis démocratie dafa soxla de l'animation hmm. démocratie dafa soxla de l'opposition démocratie dafa soxla remise en cause de yi nga xamante ne ñu ngi koy teg hmm. li intéressant ci affaire bi mooy tu n'as pas vu les partis politiques dans cette affaire. Mm. On a vu des mouvements. Mm. Et pourtant... Le dont il y en a marre. Oui, dont etc. etc. Hmm. donc euh, ma ci jaajëfal effectivement gars yi nga xamante ne ñu ngi woon ci mobilisation boobu noonu euh, ñu jàpp leen après ils ont été libérés ñii ñu sànni leen autoroute ñii ñu sànni leen hmm. Rufisque ñu ñu sànni sànni leen boori ñaajo ci guddi gi hmm. c'est pas correct d'une. yow yow yow bi ñuy jàppee yow foo ne woon. dawuma j'étais chez demoo ci marché bi. non j'étais chez moi. parce que je voulais pas y aller. pourquoi. parce que pour man on a assez transmis. Hmm. yoo xamante ne euh, man amoon na jamono doon naa dem. Hmm. mais jamono yi amuma yëg-yëgu bokk ci ay manifestations. waaw foofu laa toll. amuma yëg-yëgu bokk ci ay manifestation parce que pour man bu ñu. fi bu ñu xeexee xeex transmettre transmettre mm. il faut que d'autres aussi prennent le relais ñun xëy na mën nañoo xeexe yeneen i jumtuwaay parce que am na fooy toll sa doole sa ndaw ngay xeexe mm. am na fooy toll sa xaalis ngay jël def ko ci xeex bi am na fooy toll sa xel ngay jël boole ko ci xeex bi. Mm. ragaloo nit yi science ne Fou malaat est en train petit à petit de sortir du mouvement Y'en a marre. déedéet déedéet euh, li ma gëm mooy le tribunal de ma propre conscience. mooy man est-ce que maa ngi xeex ba tey est-ce que man maa ngi tricher bu ma leeree ni tricher wu ma te ma gëm ni tricher wu ma te muy dëgg ni wu ma hmm? te lépp lu ñuy nas ci wàllu xeex ma ciy boole sama xalaat tant que mu ngi leer ci sama bopp les autres et pas c'est pas mon problème parce que effectivement je n'ai pas également peur d'être jugé mhm. parce que nit ñi acte boo munti posé même acte xeex bii nii mhm. gars yi posé démb dégg nga ci effectivement nit ñi naan waaye mais nit ñi taluñu lii mhm. alors qu'on le fait pour les gens maintenant li wayu Youssou Ndour bi la rek mooy bo yéeg naa mbaam wàcc mbaam sama doom wàcc mbaam. boo defee lii ñu ne la et cetera et donc loolu aussi il faut pas en avoir peur parce que ku bëgg a nekk ci effectivement ni oui tu fais pour que les gens disent que pour man tu ne pas sincère dans ce que tu fais tu sais, tu fais parce que tu dois faire tu sais parce que tu sens que tu tu tu es convaincu que tu dois fair ce que tu es en train de faire mais quand tu fais effectivement pour nit ñi gis ni yaa ngi def li ngay def am lu amul sincérité oustaz Maodo Faye oui mais justement <clears throat> parce que xam nga ñoom en réalité c'est des activistes ah bu fekkente ne mën naa leen a qualifier un tout petit peu parce que euh, li mu ci dénoncé euh, bon yaakaar naa ne xaw ma torture la xaw ma parce que manière libération bi la doon dénoncé léegi. que ñenn ñi dañu leen yóbbu boori ay jam ñaaju ñu cëppeel leen fa. la nuy cëppeel ñenn ñi. autoroute autoroute à péage et na doo am oto boo mën a jël wala guddi gi mën na am ay risques y a y a des risques également. sous forme de vous torturer encore davantage pour que ngeen xaw a décourager. oui xam nga ça c' est c' est des formes de intimida c' des formes d' intimidation. xam nga intimidation bëri na bëri na façon. mën nañ la woo téléphone mën nañ la. Euh, saaga mën nañ la saaga mën nañ la téye garde à vue war la po war la enquête duñ la enquête et cetera et cetera forme yi bëri na. am na ñoo xamante ne effectivement peut-être sax gënoon na metti jamono ay jamono ci ginnaaw dans les années soixante li ñoom Decroix dund. xëy na ñun sax duñ ko dund quoi. donc en fait yooyu yëpp mais bu ñu tollee ci en deux mille vingt et pour man euh, police war na am beneen taxawaay boo xamante ne effectivement. moo gën a rafet par rapport ak ñu mel ni ñoom Guy Marius Sagna ñoom Taïga euh, ak ñoom Mouhamed Diédhiou ak bépp citoyen boo xamante ne effectivement taxaw nga pour xeex sa àq ak yelleef euh, pour man yenn traitement yi war na mën a ñàkk parce que effectivement ñi fa dem traitement boobu xëy na duñ ko def un opposant un duñ ko def un oppo un chef de parti politique alors que ces gens ne sont pas plus important que ñi nga xamante ne ñoo demoon parce que li ñuy xeex effectivement parce que nit bépp nit buy taxaw pour pour pour pour pour démocratie dund kooku mu ngi xeex pour saxal jàmm ci réew parce que démocratie mooy égalité mooy respect des droit et cetera et cetera donc yooyu war nañ ci mun a bàyyi xel mais défier les lois en fait itinéraire nga ne non c'est bon ñun bii lañ mais xam nga forcing boobu quoi est-ce que ça pose pas comme tu le dis xam nga les art les activistes c'est également des subversifs xam nga c'est des subversifs parce que effectivement mën nga jàpp ni oui il y a eu du forcing à nous imposer un parrainage parce qu'on a une majorité mécanique il y a eu il y a eu mais moi aussi ma ma ma façon de dire non c'est Euh, ma façon de dire non c'est que effectivement votre loi là jeune la reconnais pas ou je ne m'y reconnais pas gisuma ci sama bopp donc moi damay créer les conditions c'est-à-dire boo tegee dara ma jalgati ko c'est-à-dire les mouvements aussi c'est quel dañu am benn aspect ci ñoom boo xamante ne foog nit ñi di ko gis ce côté subversif mais également ce côté non conformiste parce que effectivement dañu jàpp ni li parrainage yi yiñ leen di imposer wala yan loi yi ñuy voter assemblée au nom de ñoo ëppale ay députés et cetera et cetera tout ça ils le font parce qu'ils ne nous respectent pas et pourtant ils le font parce que effectivement politiquement ça les arrange defuñu ko sax xëy na euh, pour euh, mu am jeexital ci réew mi c'est plutôt pour que mu jox leen une opportunité pour rester au pouvoir wala pour euh, mater un opposant et cetera et cetera donc ñuy dundal démocratie lu am solo la. Hmm. et je pense que taxawaay yooyu taxawaay yu ñu war a gën a bàyyi xel la parce que effectivement euh, li ci nit ñi di def c'est effectivement pour e-, faire avancer les choses. Ah ben justement au moment où l'on parle de de de ce de cette marche ak notamment li ko li ko motiver euh, notamment euh, mbirum parrainage yi ñu ngi yëg ne euh, coalition yu mel ni Yewwi Wallu Gëm Sa Bopp puisque sànq yaa ngi wax ne parti politique nekk ñu fi woon nekk ñu fa woon euh, coalition yooyee ils ont elles ont retiré des fiches de parrainage pour les législatives maanaam donc yéen organisation société civile yi yée a ngi kaas loo xam ne peut-être da ngeen gis ne mooy mooy droit mooy dëgg boobu jamono parti politique yi mu gën a concerné sax ñoom ñu ngi ñu ngi ñoom dem nañ de ils tracent leur route. oui mais ça nous ramène à 2012 quand effectivement la candidature de Abdoulaye Wade a été validée. Mm. Nous n'avions pas demandé aux populations de boycotter. côté hmm. Nous avions demandé aux gens d'aller voter, mais en ignorant le bulletin de Wade. donc c'est le même principe tey euh, la loi elle est votée la la loi elle est votée. Mmh. mais ça n'empêche pas de dire aux gens même si la loi est votée même si les partis politiques vont retirer des bulletins. Mmh. parce que ce que les gens font ils ne le font pas pour les partis politiques. Mm-hmm. ils le font pour le bien-être de la démocratie. loolu foog nit ñi xam ko c'est-à-dire defuñu ko pour que Sonko soit content defuñu ko pour que Yewwi soit content pour que Khalifa soit content pour que euh, Pape Diop ou et cetera et cetera. quoi que quoi jege ngeen leen ah jege ngeen. oui oui parce que sur des sur des sur comme de temps en temps on peut dire oui mais Malal tu as posé un acte boo xamante ne jege nga Macky Sall par mm, exemple. Mm. quand j'ai chanté euh, sensibiliser sur le terre. Mm. ama hmm. ne leen courant bi dafay masse j'ai été traité de de souteneur de Macky Sall hmm. mais ça ça moi pour moi le sens de cette sensibilisation c'était pour dire hmm. euh, courant bi dafay masse tey terre bi mu ngi mu ngi daw j'ai raison et pour je ne le faisais pas pour être proche de Macky Sall je le faisais parce que effectivement même bu fekkee dañ ma si fay xaalis ça a un sens parce que ça a une signification. c'est d'utilité publique c'est d'utilité publique. Mm-hmm. tey aussi quand les Guy sortent. Mm. quand les Mohamed Diédhiou sortent quand les Y'en a marristes et les gens de FRAPP et d'autres mouvements sortent. Mm. Euh, ñu gis ni derrière que les partis politiques ñu ngi ciy dem. Mm. mais ñoom gi ils ont raison parce qu'ils qu'ils sont sur le principe. parce que effectivement xeex bi ngay xeex tey dafa mel ni jëmbat la xam nga en fait dafa mel ni diggante activistes yi ak actes yi ñuy posé dafa mel ne xooxu buy booy jëmbat. Hmm. di nga ko jëmbat mais doo fekk xëy na fi muy meññee ba ba nga mën a jëriñoo buy bi ci boppam. Hmm. buy bi say sët wala say sëtaat ñoo koy jëriñoo. Hmm. pour man c'est l'image qu'il faut donner à. alors mais depuis très longtemps da ngeen di nekk ay activistes vous luttez contre quoi contre euh, le régime contre le système contre quoi en réalité. non en fait nous ne luttons pas. Ah, vous quoi Nous ne luttons pas contre. Nous posons des actes ouais. pour arriver à des changements, à des, à des transformations positives. Nous menons euh, mais là, cela nécessite oui, une lutte. Hein, oui, <laughs> oui, mais, mais maintenant, là, quand on dit je lutte contre la délinquance, mm. Hmm? moi je dirais à côté. Mais en luttant, on pose des actes. Oui, très bien, mais je, dis, c'est poser des actes mais moi du ma kon parce que lutter contre moi je dirais je me bats pour l'éducation des enfants ça veut dire simplement yow mën nga ko woowee lutte contre la délinquance mais pour jox une information askan wi mooy li ñuy xeex li ñu li ñu li ñu li indi suñu woroo ak diw mooy jeexital bi lii ak lii la man damay ñëw ci jeexital bi quoi yow da nga ñëw ci li nga xamante ne moom la ñu nekk di def mais ñun dañu nekk ci effectivement finalité wu ci li nga xamante ne moom euh, finalité wu combat bi ñuy mëne li tax ñu koy def li tax xam naa comprendre nga ma quoi donc xam nga en fait loolu la donc en fait euh, euh, pour man loolu lu am solo la lu lu am lu am solo la barkaati démb week-end bi passé dañu nekk avec le mouvement Y en a marre entre Pikine Guédiawaye nekk ci caravane ak ay jeunes yu yor ay asiko di sensibiliser askan wi pour ñu inscrire ci liste électorale yi. Hmm. c'était vraiment intéressant lu tax mu intéressant mooy effectivement on ne le fait pas pour mobiliser des citoyens à voter contre quelqu'un mais on le fait pour qu'on ait un maximum de jeunes qui votent. après instant boobu euh, parti politique yi aussi dañ leen use parce que bu ñu leen soxlaa rek ñoom activiste yi balaa ñu use leen xoola xoola xoola wañ leen ba ñu kii tege leen nale après ñoom dem nekk ci seen business xam nga en fait voilà yéen daal noonu a dëkkee quoi xam nga ñu nekk ci parti politique yi hmm. gënuñu ñu judd hmm. gënuñu ñu bokk ci réew mi hmm. gënuñu ñu jàng gënuñu ñu également am taxawaay ci réew mi maintenant mois quand je pose un act mm. sur le mm. terrain yow nga jàpp ni yaa ngi may use te man sama objectif vraiment mm. mooy fexe ndaw ñi am seen carte électeur pour aller s'inscrire et puis pour aller s'acquitter de leur droit de leur devoir ou de leur droit de vote man foofu laa yem ci bëgg-bëgg ak ci yéene ak ci gis-gis maintenant bu fekkee yow sa intention leneen la te man ak yow amuñu benn accord boo xamante ne mooy wane ni yaa ma yónni te man leer na ma ni yónni woo ma yow boo jàppee ni yow yow laay yow laay liggéeyal c'est ton problème quoi. Hmm, est-ce que même même si confusion mën na am foofu. oui de l'autre côté beaucoup beaucoup dañ leen di mais ñii bëggu bëgguñu dara quoi en fait. justement ci euh, use boobu euh, noonu. parti politique yi bu ñu leen usee ba pare après ñoom ñooy nekk ay député ay ministre ay quoi quoi quoi. léegi activistes yi ñoom xam nga li li ci eh. bëgguñu dara. Eh. non li ñu bëgg mooy démocratie démocratie sax parce que on sait que acte yi activiste yi lu mu ndaw ndaw hmm. mu ngi jur coppite mu ngi indi changement ci li nga xamante ne ci dundu doomu aadama yi hmm. ñun résultat boobu rek lañ ci soxla maintenant hmm. le travail des activistes muy yaanaamaa rek ñi ko fi jiitoog ñi bees ak am na lu mu indi li mu indi mooy may na sañ-sañ ay ndaw dem investir euh, les les listes électorales ci élection wu municipale yi di nga gis effectivement ci élection législative yi on aura énormément de jeunes qui vont par exemple moi quand l'autre jour j'étais à euh, à l'ouverture au lancement Tchad dafa ñoom Tchad dañu lancer benn centre bu tudd Dalal Jàmm mm-hmm. à Ouest Foire mm-hmm. mais qui a été inauguré par le maire de Yoff. Quand j'ai vu ce maire-là, mm -hmm. j'étais très heureux. Mm -hmm. Je n'étais pas heureux parce que je le connais. Je n'étais pas heureux effectivement parce que euh, j'étais simplement heureux parce que c'est un jeune. C'est un jeune de ta qui génération. A, oui, oui, qui est de, en ma, de non, ma, si, mais je veux dire, c'est la même génération. on parle pas d'âge, on oui, Tu vois en face de toi un jeune de ta génération qui occupe un poste. pour lui et pour toi et pour ta génération. Oui, Très bien, lolu lolu mo tax lolu ma contane. Mhm. Nga dem ci ay ay mbaaw wala nga dem ci yenen gox. Mhm. Même aujourd'hui Ahmed Aïdara. Mhm. C'est pour dire que effectivement en fait. Oui, finalement. Mm -hmm. le euh, les postes de responsabilité. Hmm. ay maire ay député ay et cetera. mais c'est pas simplement oui pour une élite hein, pour c'est pour dire il faut que ñu dem ci ay déconstruction yu demee noonu. justement est-ce que yaa ngi ciy xalaat yow. par exemple ñu jëm ci élection. législative non personnellement. Malal Talla député honorable député Malal Talla. par exemple pourquoi pas. pourtant Nicolas <laughs> moo grave Nicolas moo grave mais doo dem assemblée nag ñu naan ñu naan honorable député Fou Malade quand même c'est probablement c'est probable pourtant gént naa gént naa loo gént foofu voilà gént naa gént naa démb rek eh. euh, gé xaw ma kañ laa géntaa ah, xam naa démb la quoi eh. euh, ma toog jàkkaarloo ñoom buuba naan ma honorable député quand mais mais en réalité <laughs> j'y ai réfléchi non non non c'est très possible oui mais j'y ai réfléchi parle même pas de probabilité mais c'est na xam nga en fait lu mën a nekk la wala en fait oui niveau de Guédiawaye bu ma postuler woon maire du ñàkk ma nekk ko parce que effectivement liggéey naa ba pare falaa dëkk liggéey naa ak askan wi loo xamante ne effectivement mën na ma yóbbu foofu que askan parce mais en fait après dama. réfléchir mais mais Guédiawaye rëcc na la kon. oui non mais mais après dama réfléchir ma ne mais finalement. oui bu ma nekkoon maire objectif bi lan la c'est pour travailler pour Guédiawaye ne am gën a baax. Mm-hmm. mais ah ci fi ma nekk san nekk maire je suis en de le faire donc en réalité soxlawuma ko. Mm-hmm. c'est-à-dire est-ce que réellement il nous faut un poste. Mm-hmm. pour travailler pour travailler. cela veut-il dire que Malal euh, <laughs> envisagé wul présenter wu. au législatif je ne pense pas. ok ne pense pas parce que pour man yaa ngi mooy invité rajo may wax si si si par exemple bu la jiitalee. non non en fait. xoola sincèrement ci sam bopp. instant bii nii. ça ne m'intéresse pas. ok pour parce que disons pour le moment. oui parce que xamul tax. parce que Maodo bu fekkee de assemblée dem fa di wax la. man maa ngi fii si yéen a ngi may invité may wax maa ngi toog si télé yi ñuy wax. xam nga pour moi pour moi. soxla am na pour moi non mais grand ay titre la rek. Eh. ay titre la rek quoi. pour man beneen engagement la aussi. oui beneen engagement la mais ay mais pour man on est même beaucoup plus efficace. sans sans sans titre yooyu quoi. parce que titre yooyu en en quelque sort mën na sax. gën a constituer obstacle si sa progression. d'accord bu mouvement Y'en a marre. mais décidé moom ne dafay dem ci législative yi est-ce yow di nga gunge mouvement Y'en a marre quelles que soient les personnes. qui seront waaw waaw d'accord waaw mais mais voilà non man li ma la bëggoon laajaat mooy bon yéen seen euh, seen xeex yi quoi en réalité day continuer depuis Abdoulaye Wade Macky Sall à un moment donné vous collaborez avec Macky Sall ah oui à mais <laughs> oui justement oui moom Macky falu ngeen xeexaat c'est-à-dire que à la limite euh, oui euh, da di dema ba mu yàgg yéen lan ban principe la kañ ngeen ça va arrêter un jour quand même oui mais bu taxawee mooy wala boog démocratie yéen non non pour man pour man oui maanaam sama bouteille ndox bi pour pour ah. pour man. waaw ah. boo demee bay conquérir dara ba jot ci. bi nga ci jotee ngay identifier un nouveau combat et une nouvelle conquête. encore une fois et loolu mooy jox sens suñu dund. mais justement cest à dafa mel ni. nga yow da nga am impressionné éternel recommencement la ci mais mais mais adduna bi lool. mais adduna adduna mais il paraît que vous avez même promis des des des postes de député. non non non non du lool. du lool ma wax la man loolu maa ko fekkee. këram la. Hmm. président ñun ak moom. waaw y'a y'a xaaral moom këram. Hmm. il dit wax dëgg fa yàlla gëm naa ni. bu dul woon yéen du ma yegg si au pouvoir parce que xeex ak Abdoulaye Wade yombul woon. na n'ayez pas peur d'incarner le pouvoir bu ma sañoon da ngeen di ñëw ñu ànd liggéey ay poste de responsable pas député ah parce que député dañ la koy fal. Mm-hmm. Mm-hmm. ay poste de responsabilité ngi fi. ay direction ay tel ay tel mais il faut vous mettre mu ne il a fait des propositions concrètes par rapport à ces postes de responsabilité ay direction ministère pour ñenn ñi et cetera ay chargé de mission ay tel tel et sincèrement hmm. jour boobu le mouvement bi gëj a toog ak moom mais individuellement man dem naa fa ci Covid bi dem naa fa aussi avec avec les avec les cultures urbaines et cetera mais boobu bi mu ko waxee hmm. la réponse du mouvement mooy ñun bugguñu loolu parce mm. que c'est comme si on s'est on s'est battu pour après avoir notre part du gâteau. Mm. li ñu bëgg mooy ñuy am de rencontre périodiques. Mm-hmm. pour pouvoir wax la ñun suñu xalaat ci ni dëkk bi di doxee. Mm-hmm. il avait promis de nous rencontrer tous les six <coughs> les trois mois. et il ne l'a pas fait. Mm. il n'a pas respecté. il ne l'a il ne l'a pas respecté. dafa neew président Macky Sall dafa neewoon tous les trois mois dina daje ak yéen. oui mais boobu ba ngeen mujjee gis ak moom sa fait kon combien d'années. ça fait beaucoup hein. boobu c'était en 2012. 2012 ba tey. donc mais, euh, mais après à travers la Covid à travers euh, rencontre des artistes et le président moi personnellement j'ai eu à le rencontrer avec d'autres personnes et cetera. Mm. et il y a même eu un moment après le mois de mars daje nañ ci ay jotaay. où je lui ai dit. bu situation bi demee nii je lui ai dit rajo laay wax. Hmm. bu situation bi demee nii si dëkk bi c' parce que tu n'as pas les bons interlocuteurs. Hmm. pour man. Hmm. loolu aussi il faut que nit ñi nangul ko. nit ñi way sañ-sañ bi nit ñi am. et ça il l'a bien entendu. sauf que il l'a pas non plus. il ne vous a pas rappelé non plus. Ah, c'est ça donc en fait finalement après dootoo ko soxla. parce que effectivement. yaa ngi wax yaa ngi posé ay acte mm. mu ngi lay dégg. Mm. alors que effectivement am na yoo xamante ne xëy na bu waxtaanoon ak yow waxtaan ak yeneen i ndaw. Mm. mën na mën na ko permettre mu anticiper sur certaines questions. tey bu leen wooloon. Euh, je pour justement parler de mais loolu mouvement bi moo koy apprécier. c'est-à-dire euh, individuellement je peux pas dire moi personnellement. Euh, sur. sur des questions personnelles, mm-hmm. euh, culturelles, etc. On a plusieurs fois discuté, mm-hmm. ou ou aussi ça m'a donné une opportunité de, de lui Est-ce que, est-ce, que, dire... est-ce que le président de la République bi ngeen toogee këram mu wax leen ne leen euh, léegi périodiquement chaque trois mois ngeen daje. bu ba mu ko defal est-ce que jëm ngeen ko relancer jëm ko essayer xool est-ce que son agenda oui une fois chargé wul non une fois deux fois. mais xam nga en fait mais dafa am euh, une fois deux fois. Euh, on a on a on a rappelé ça à travers euh, ay euh, intermédiaires à travers ay euh, correspondance mm -hmm. peut-être qu'il n'a qu'il ne l'a pas voulu mm -hmm. peut-être qu'il ne l'a pas mm donc après aussi euh, nous on n'est pas là pour lui dire mhm. def ko par force et puis c'est une question boo xamante ne ñun romb nañ ko ñu ngi ci ñu ngi ci yeneen donc après moo waral aussi xam nga aussi quand l'État dit ça mhm. xam nga État aussi soit tu es son partenaire ou tu n'es pas son partenaire. Mm. tu es son partenaire, vous êtes ensemble, vous n'êtes pas ensemble, mhm. il crée les conditions de te discréditer. N'est-ce pas Donc, Lolo, Lolo, amna solo. Euh, euh, Oustas Mauro il me reste moins de 5 minutes. Hein? Il nous reste moins de 5 minutes. Je veux juste qu'on y aille très vite parce que euh, billet information, euh, what de taille aussi, Bugnachi, Khalat ak Gisgisou, euh, Fou Malade, d'autant plus que cela fait un an, bi événement ah Marseille, ah, ouais. euh, Amé, nous euh, yekne, euh, euh, Ousmane Sonko, le nouveau maire de loolee ñu naan euh, levée euh, euh, de de contrôle judiciaire mu ngi koy demander doyen des juges mais l'info qui vient de tomber est que le doyen des juges a suivi le réquisitoire du parquet donc libération moo joxe boobee information rejeté demande du mainlevée bu contrôle judiciaire bu maire de Ziguinchor Ousmane Sonko pour rappel Ousmane Sonko avait déclaré il y a pas longtemps j'ai cessé d'aller signer depuis deux mois je ne vais plus le faire je l'ai déjà fait pendant dix mois mais je ne peux pas me respecte pas kon euh, levé euh, kii judiciaire boobu noonu euh, ba léegi contrôle judiciaire ba léegi nii soo ko mu ngi ci loolu est-ce que ragaloo yu ni mel dem ba jur yeneen ci ci réew mi. waaw xam nga effectivement bu citoyen di défier justice mooy war nañu poser question pourquoi. Hmm. pourquoi effectivement rupture. pourquoi le contrat rupture de confiance de confiance boobu lan moo ñu fa indi. est-ce que c'est parce que la justice ne pas équitable. est-ce que parce que amul ay précédents yoo xamante ne. on a vu des situation où la justice a été utilisée pour des pour des raisons politiques. loolu yëpp dafay discréditer. li nga xamante ne moom mooy yoon parce que yoon effectivement la loi elle est dafa war a tëdd njaaxaanaay. Mm-hmm. bu tëddewul njaaxaanaay effectivement. Euh, après finalement li muy jur mooy mm. euh, faale wu ma yoon mm. après faale ma yoon yoon ne la man maa fi nekk maa yor yar bi mm. effectivement ngay nga dem extrémité yoon xëcc extrémité après finalement. affaire bi affaire bi est-ce que d'accord nga ci taxawaayu Ousmane Sonko bi mu ne dootuma dem di signer pour man. il ne doit pas le faire il doit dafa war a dafa war a dem di signer pour man loolu mooy euh, loolu mooy yoon hmm. te loolu mooy yëfu kilifa hmm. après nag les gens doivent travailler à ce qu'il y un procès équitable hmm. procès boo xamante ne dëgg rek moo koy tax a jóg parce que effectivement ñu nekk ci dëkk boo xamante ne effectivement yoon amul bu yoon amul Euh, on va vivre dans l'anarchie hmm. procès boobu yaa ngi koy tudd justement suivre nga dernière sortie yi nga xam ne les principaux concernés def nañu ko par rapport ak procès ce procès qui tarde euh, am naag amul dem ak demul loolu ba léegi coow li bëri bëri na ah, ba léegi gars yi ngi xaar mu leer et puis on contraste on avance sur autre chose nan nga gisee euh, sortie yi mujj par exemple la la demoiselle Adji Sarr qui a fait une sortie auprès des médias internationaux il y a il y oui xam nga man man euh, je suis désolé pour man euh, Adji Sarr dans cette histoire elle a elle a été utilisée c'est mon point de vue du ma juge nag quoi. Mm-hmm. elle a été utilisée euh, et puis c'est et puis finalement elle est devenue même elle-même une victime dans cette affaire la mm-hmm. parce que on s'est appuyé sur elle dugal ko ci ay affaires yoo xamante ne effectivement dem na ba ëpp ko doole c'est-à-dire elle est dans une situation où en fait elle est obligée peut-être. d'aller jusqu'au bout et aller jusqu'au bout euh, euh, ba pare finalement li ci ëpp du moom elle est manipulée elle est utilisée elle est fatiguée pour moi cette fille là on doit la laisser en paix mm. on doit la laisser vivre parce que normalement à mon avis elle doit être fatiguée hmm. même si elle demande toujours justice oui, pour que oui, mais parce que xam nga boo déclenché benn affaire mm. tu es obligé d'aller jusqu'au bout elle a été mise dans une situation très, très, très, très compliquée. Mm. Après aussi, euh, est-ce que tu, par exemple, Adji Sarr, est-ce pour moi, elle a besoin d'assistance psychologique <laughs> Elle a besoin d'assistance psychologique. Psychologiquement, elle est ah, fatiguée. Ah, oui, parce que parce que parce que parce que déjà événement, voilà, parce fort, que les événements de mars de, de, tous les parce jours que, les, que fait, on parle de toi, et psychologiquement, elle est, morte. Mm. Parce que effectivement, bon, il tey euh, bu ci ci li ñuy topp di ci wax même le simple fait que Adji Sarr xalaat ni les événements de mars moom bokk na ci li tax mu am. Mm. avec douze morts. wala sax moom. elle est le point quatorze morts mm. dans sa conscience. nañu dimbali doomu jàmbur bi. elle eh, a dit ah elle dit que maa ngi jégalu parce que nit yi yëpp jarul. oui elle est fatiguée donc daal ñu ñu dimbali ko. Euh, pour mu kii euh, am na solo ñu ngi may def si euh, de l' autre côté de la baie vitrée que mët na sëkk publicité yi dañuy xam nga ak xibaar maa ngi gis chat bi il a eu beaucoup de réactions puisque nous étions en direct si YouTube ak Facebook ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci réaction yi ci àdduna bi yëpp sénégalais yi nekk kii bu intéressant laay Pythagore pas temps pour euh, euh, de n'est-il pas temps de laisser des jeunes prendre le relais dans le mouvement Y'en a vous avez l'air fatigués les anciens il a parfaitement il a il a il par <laughs> mais mais mais xoola xoola cette discussion moom lañ nekk di am nii uh-huh. parce que c'est vrai c'est-à-dire <laughs> ay mag ngeen léegi mais aujourd'hui par exemple Mohamed Diédhiou ki ñu jàpp démb eh. Taïga c'est un jeune hmm. ñoom lum ñoom euh, tout le monde ñoom Cheikhou Camara tout ça ils sont là. waaw ah, mais booy yooyu nañ jël relais. mais oui hmm. mais. loo gis nag dafa am. Hmm, processus dafa am processus ak ni il a parfaitement raison laay Pythagore. merci jërëjëf Malal Talla Fou Malade. merci beaucoup Oustaz Maodo Faye maa ngi lay bu baax di la gërëm. am nga sa invité dimanche. Euh, ki moom defal la promotion tuuti wala. waaw mooy kii la Boubacar euh, Seye la bu. Boubacar Seye voilà. Euh, horizon sans frontière voilà ma defal sa émission nu mu tudd. <laughs> jano bi jano bi voilà je fais un peu de promo quand même ah promotion Doudaya oustaz quand même <laughs> merci, beaucoup merci à l'équipe technique merci à l'équipe digitale rendez-vous dimanche donc jano bi oustaz Horizon sans frontières euh, ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm je vous souhaite de passer un excellent week encore un grand merci à Malal Talla Fou Malade mi nga xam ne saa bu ñu ko soxla bu ñu ko yittewoo mu daal di teew euh, ñu ngi nuyu waa mouvement Y'en a marre par la même occasion di vous di leen famille ou entre amis. Profitez-en maximum et rendez la semaine prochaine. D'ici là, visez la lune, salut et à la semaine prochaine. ndekki li daal ca dëgg-dëgg mooy émission nandite yi. tàngal bége jinjeer ndoxu waalo boisson punch orange ñoo leen doon may seen émission ndekki li